On peut peut-être, sans pour autant minimiser la chose, hein, dire que quand même, euh, euh peut-être, euh, euh bon, peut-être au niveau local, oui, ça on a un, impact. Même pour les école écoles, parce que c'est des, des élèves, c'est des, euh, des enfants qui vont à ces écoles. Si ces élèves-là ne peuvent pas accéder à leur école, si ces élèves-là, compte tenu de la situation, euh, leur droit à l'éducation est, est compromis, euh, tout de même ya ya problème mais euh, bon de manière générale je pense que le Sénégal quand même est est bien doté en infrastructure scolaire il reste peut-être dans des zones yoo xam ne le taux est encore très faible parce qu'on est encore à l'ère des abris provisoires et souvent ces abris provisoires justement euh, c'est la communauté nit ñi dëkk ci ci gox bi ñoom ñoo jël initiative euh, defar ay abris provisoires et la dernière fois j'écoutais un inspecteur d'académie xamatuma ci ban diwaan mu ngi ko doon wax di expliquer ne abri provisoire moom dina jafe ñu mën ko fee jëlee. parce que de toute façon chaque année il y a de parce que la demande en éducation est très forte. te parent yi ci seen bopp je le rappelle du ñu bëgg a gis seen i doom yi di des kër ga parce que ne école amul. wala parce que ne salle de classe yi doyuñu ñenn ñi ñoo jël initiative dem defar ay mbaar ne leen jàngal leen suñu doom. et maintenant à l'État de suivre la procédure pour justement mu mën ko tabax en dur après avec bien sûr l'aide des des collectivités territoriales comme les mairies entre autres mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire parce que le budget de l'éducation on le rappelle encore et on aimait rappeler ce chiffre sous Abdoulaye Wade c'était quand même cent du budget national 40 pour cent boo xam ne la plupart de cet argent mais c'est pour payer des salaires c'est pour payer des salaires où est les constructions dans tout ana investissement yi dans tout ça à hauteur de combien c'est ça également le problème et malheureusement peut-être euh, euh, euh, xosi enseignants yi souvent on les entend dans des revendications mais la plupart du temps xaalis lay doon et ñoom dañ koy bañ sax d'ailleurs souvent boo leen koy waxee ñu xaw ko minimiser naan oui oui d'accord condition de travail ok condition de vie ok mais souvent également il faut penser justement à cette école sénégalaise que nous devons honorer parce que quand wàllum li ci ëpp xaalis. xaalis xaalis li ci ëpp rarement nga dégg leen ñuy kaasal seeni ay euh, élèves c' est assez rare et bon on va vers vers une année scolaire euh, bientôt fii ak peut-être mois de décembre novembre décembre tu entendras des élèves également dire que dañuy dem grève parce qu'on réclame des enseignants des professeurs de mathématiques des professeurs de sciences xawma lan SVT parce que y en a pas assez et le déficit d'enseignants aujourd'hui il est réel xaw ma nag lan la ci ministère di wax lan lay expliqué est-ce qu'il y a un processus de recrutement est-ce que ce recrutement qui est là pourra résorber le gap qu'il parce que la semaine dernière on parlait d'un gap de de 35 000 enseignants dont le Sénégal a besoin mais loolu bëri na asma. bëri na 35 donc fu ñu fu ñu fu ñu jëm. bëri na mos. à ce rythme l'école sénégalaise mais fu ñu jëm. tout de même quand même rendre quand même hommage euh, à ces enseignants qui se démènent comme de beaux diables malgré tout ah, parce am na ñoo xam ne. ils font ce métier par par passion. par, par passion. vocation. ñoom ay jàngalekat lañu. dëggantaan et ce sont des enseignants clés en main. parce que ñoom ça c'est un sacerdoce ñu ngi ci biir classe yi di ci góorgóorlu di def lu lu lu di di def sax lu raw seeni peut-être euh, euh, seeni ay ay prérogatives parce que y des enseignants yoo xam ne ils encadrent toute une classe et nos classes on le sait c'est des classes pléthoriques c'est des chiffres pléthoriques, mais dans la classe, il y a des enfants qui sont, faibles de niveau et qu'il faut également prendre en charge. Mais il y a des enseignants, yo dès le début de, de l'année scolaire, ils démissionnent face à ces élèves, yo ils sont moins dotés que leurs camarades, et ce qui fait qu'on les laisse après. Euh, manifestation yi ñu duggee. Hmm. bokk na ci li ko saccagé. ba tax la indisponible loolu phénomène la ñu gis dugg ci biirum l'école yi mu xaw doy waar. ci biir hôpitaux yi sax. mu xaw doy waar est-ce que du moo jaxasee lépp. <laughs> mais voilà <laughs> wàllu wàllu politique day dugg ci biir rédaction yi sax. <laughs> ah mu leen daw na fépp waaw fépp mais le problème qui se pose c'est que quand même voilà c'est c'est c'est un préjudice. Mhm. finalement on se rend compte que. il ne fallait pas le faire malheureusement mmh. bon mais c'est la situation qui il faut trouver un moyen et des solutions pour régler ce problème bon l'école n'a rien à voir avec ça Mhm. Cette idée de vouloir tout le temps saccager le mhm. bien public. En fait, le bien public nous appartient, mais regarde le nombre de Dakar Demdik saccagés. Mhm. Mais c'est un bien public et ça appartient à qui ce bien au, au, À l'oncle de, de, de, de, Simon qui doit quitter Nyakoul Rap pour relier son lieu de travail, c'est-à-dire à, au Cap Manuel, mm -hmm. et qui n'a que ça comme moyen de transport. C'est lui qui souffre. C'est pas c'est pas le ministre, parce que le ministre, lui, il a VXV8, mm -hmm. e anniversaire. Mm -hmm. hein, pra, euh, pra, Prado au frère du contribuable. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment lui ramener manifester. Là, maintenant, c'est une autre paire de manches, parce qu'aussi, il faudrait pas. Montari, mhm. il y a un fait qui a disparu dans les partis politiques les écoles de parti. Mhm. Mhm. Parce que école de parti, quand même, ça avait. Parce que quand on parle de saccage, on parle bien de politique. Voilà, maintenant, quel type de on a, on a moins de militants de parti on a que des fans-fleurs des sympathisants maanaam li xew nawetaan loolu moo am ci parti politique yi mhm. c'est ça la réalité donc il faut vraiment remédier à ça mhm. il y a un certain nombre de choses à l'assainissement de de, de, de l'espace politique public ça en fait partie mais par rapport à Simon li Simon Pierre Faye wax mhm. envie de voir un point ñaata syndicat la ñu am ci enseignement parce que aussi il faut assainir Simon il faut assainir aussi son niveau ñaata Sénégal. mais na réew mi boo assainir ñu ne la de deux poids deux mesures moo am. on n'est pas les état sentiment. c'est-à-dire loolu aussi il faut qu'on sache que l'état n'a pas un cœur l'état n'a pas d'organe L'État n'a pas de cœur. Mais, mais reconnaissons-leur quand même le droit à se syndiquer. Non, c'est un droit. Oui. Mais attends aussi, c'est une liberté. Mais c'est peut-être le miettement, Non, mais trop de liberté aussi, Simon. Yo, mais Trop de liberté tue la liberté. wow. On parle de déficit d'enseignants. Mm -hmm. C'est la même chose. On parle de déficit de médecins. Mm-hmm. Je prends enseignants. Mm-hmm. Déficit de force de l'ordre. Déficit de force de l'ordre. maintenant, les permanents des syndicats parce que yow chaque syndicat a un permanent maanaam tu a adresse une lettre au ministère de l'éducation pour dire kii damaa bëgg mu nekk permanent au lieu d'aller enseigner l'enfant qui est à Makacoulibanta il va être permanent d'un syndicat et il y a combien de syndicats combien de permanents on parle de déficit mais il faut aussi voir ça combien d'enseignants sont aujourd'hui détachés de leur poste parce que un enseignant sa place c'est dans Combien d'enseignants ne sont pas dans les salles de classe, mais sont des permanents de, à un syndicat Et qui, mais, et qui se réclament enseignants. C'est comme aujourd'hui, bord de la Santé. Mm. Yo, premier étage, quatrième étage. Il y a des médecins. Dans des bureaux. Alors que la place du médecin, c'est à l'hôpital. alors qu'il y, a des gestionnaires. Il il y a des gens qui sont formés mm-hmm. pour gérer les projets de santé. Mm-hmm. Par exemple, directeur de la lutte contre la maladie, ça peut être quelqu'un sorti du César. C'est vrai. Ça existe. Mm -hmm. Mais voilà, ça peut être quelqu'un sorti du César. Donc vous voulez nous faire comprendre qu'avant de syndiquer, il faut euh, accepter le sacerdoce du métier. Mais donc, mais il y a combien de permanents dans les syndicats qui sont des enseignants? Parce que on nous dit la place d'un journaliste, c'est où? Dans les rédactions. Dans les rédactions. La place euh, <laughs> d'un militaire, c'est dans un camp. Mm -hmm. <laughs> La place d'un fou, c'est à l'asile. Mmh. Mais la place d'un enseignant, c'est dans une salle de classe, c'est B A par 1 plus 1 égale 2. Mais Simon a évoqué tout à l'heure, hmm. Mamba Ndiaye, le phénomène de en la non-patience, hmm. voilà, le manque de patience de certains mmh. enseignants aujourd'hui face euh, justement au retard de réception de leurs élèves. da ngay gis élémentaire xale boo xam ne boo ko ne 1 plus 1 peut-être il va comprendre mais il faudra lui expliquer longtemps est-ce que ce n'est <laughs> je comprends vite, mais il faut m'expliquer mais ça Mais, mais, mais, mais, xam nga asma classique xam nga élèves yi li li leen li leen li leen di jàngal rek. li ñu leen di jàngal rek moom mooy feeñ si ñoom. xam nga jàng mu njëkk ma. jàngam mu njëkk ma pas pas euh, patience bi ci amoon ci jàng jàngalekat yi. mais passion bi ñu doon dund. parce que ñoom jàngale peut-être passion la woon avant ñuy jàngale. donc amul boobu ñu si amoon. Euh, moo moo daan moo daan reflété tey sama yaay bu la làkkalee français. nga xam ne ki njàng mu yàgg ma moo ci nekk bu la bindalee. nga xam ne ki njàng ma moo uti naa suñu bos. mais dangay gis fi mu nekk nii euh, génération bu mujj bi jàngalekat yi mujj la lañ ko defoon dañ naan peut-être fii doxul xaaral ma dem la ngaa mu si jàng mi. ut ko la ut koo xam mu dugal la nga bokk ci concours bi ñu dugal la ci classe yi mais kooku defu ko. parce que passion la ci moom mais daf ko def parce que amul si dara lu mu jàpp. mu langaa mu si jàng bi kon gëdd ga ca war du ko jox. c'est vrai am na ay jàngalekat yu nga xam ne ñu ngi koy respecté ni mu waree mais dañ koy dañ siy dugg nii rek pour seeti leneen. léegi ñu si bëri talu ñu jàngale mi. syndicat la ñu ko def pour dugg def euh, jaaree prox ndool dugg ci politique bi. Uh-huh. talu ñu école bi. njàng mu njëkk maa léegi du benn moo tax élèves yi njëkk yàq yii nii du doon benn. kaña nga gis yow kañ nga daan gis école te ñuy ñuy ñuy dajji parentère yi dajji taabal yi. wekki buntu yi parce que xotti kay yi. ndax école tëj na kontaan nañu mais loolu suñu su ñu njëkk ñi daan ñu ko def. kañ nga daan gis également jàngalekat buy dem dugg ci classe yi di génne élèves yi naa leen kaa leen ñu marché pour des raisons politiques. pour libérer pro combat politique. loolu amul woon. c'est une donc affaire yi moo changé. jàngalekat yi leen bëggee sanctionné euh, dañuy jaxase peut-être l'opinion publique ba nga xam ne ni euh, dañuy victimiser wu. dama ne ku si nekk bu mhm. delluwaatee sa la nga la nga xam ne peut-être moom moo taxoon nga nekk ci classe yi. je pense que kon euh, dinañ gis résultat bi. Mhm. di nga gis ay élèves yu nga xam ne yow di ngay dem ba di nga dem ba université koo xam ne ni boo ko boo ko man dañ daan interviewé nit boo ko interviewé moo defal la olof nga nekk français mu ne waxuma français. parce que loolu mu ko jëlee ci élémentaire bi. Mhm. demax moom ba université. nga il faut ñu xoolaat. suñu jàngalekat yi nañu am jotu jàngal suñuy doom mhm. nañu am jotu jàngal suñuy doom te wàññi politique bi également nag pas de responsabilité pour état bi moo di fexe ba conditions yi réunir mhm. tey jii boo amul salle de classe boo jàngale wala nga am ay sàkket ay abri provisoire jàngame jàngale mi du ko tax a demee noonu et puis même bu dem mais nekkay abri provisoire sax di nga gis ñoo xam ne ni ci abri provisoire yooyu lay jógee ñooy nekk les meilleurs élèves ci concours yi ah volonté la laaj rek. mais tamit état bi nag comme ni ñu ko waxee n'empêche na créer les conditions. c'est comme la bachelor de cette année en en en sciences yi la jógee ma xam nga ban la maa ngi koy gis RTS defoon ci benn defoon portrait mais école ba mu jógee di gis nañ ko. gis nañ fi école boo xam ne élèves yi dañuy bu ñuy traversé dañuy jël gaal bu ñuy jàng dañuy jël gaal traversé dem defoon defe naa waa Sénégal ñoo defoon reportage ba mu siiw. après kan moo leen jàppale mais defal leen salle de. defal leen salle de classe yooyu. dañuy concentré wu ci jàng mi def focus ba man cee génne. mais n'empêche loolu du raison état bi ci boppam. na na fexe ba réunir conditions yi maanaam ay jàngalekat yu mat euh, école yi mu defal leen na mu waree abri provisoire yi ñu jëlee leen fii. jàngalekat si boppam ñoom it bay seen waar wàññi politique bi te xam na ñoom ci boppam xaaruñu leen ci politique. mais y a trop de mais bari na ci autour justement de wàllum yi ak état lu ñu génn di kaas rek mooy wàllum koppar donc état bi kañ lay jël koppar dajale ko pour peut-être tabax abri pour provisoire yi mën fee jugee kañ la état bi di mën a jël ci investissement boobu noonu nga xamante ni jagleel lañ leen ko pour mën a càmbaraat ne serait que le contenu du système éducatif est-ce que c'est pas justement aux enseignants de faire un peu profil bas non waaw mais nag jàngalekat nag jàngalekat nag. balaa ngay jàngale sa xel day dal. mais sa xel day dal ñoom yoon moo leen ko may. sa xel moo dal ah. sur la base euh, d' accord c' sur la base euh, de loi c' sur la base de règlement c' sur la base d' indice salarial c' est sur la base de donc. moi je me dis que ces enseignants ont, bien le droit de réclamer. mais bien sûr moom on n'en disconvient pas. Est-ce qu'ils ont le droit de trop réclamer que ça. trop peu euh, ça dépend. mais de toute façon. ce qui est sûr mën nañ réclamer de meilleures conditions. ce qui est sûr. ma a nekk l'aspect pécuniaire quoi. que que ça. Ce qui est sûr. Ouais, oui, en même temps un député se taille euh, la paix ou bien un autre corps de l'État gagne plus. Mais, mais, mais Fabrice, Lolo Indiwon, Lolo Indiwon, la longue grève là qui a abouti ah. à la revalorisation des salaires. D'abord pour les enseignants. Oui, parce que l'enseignant, moom jàngalekat bi da lay même le président de la République, il est passé par nous. ñun ñoo ko jàngal. <laughs> Justement. Donc cet enseignant là, moom il a de la valeur dans la société. te dañ ko ko war a jox. parce que ñun ñi fi toog yépp jaar nañu école. même ñi jaarul école sax am na lu njàng mi def ci ñoom. quoi qu'on dise. donc cet enseignant la qui forme le président de la République. qui forme le médecin. ki forme le militaire aujourd'hui gradé aguerri. qui forme des fonctionnaires. qui tiennent aujourd'hui l'État. qui forme des magistrats. Mhm. alors cet enseignant ne va pas accepter que mu sous-payer. qu'il gagne moins par rapport aux autres. looloo indi woon problème bi c'est pas que kii cent francs la am man je dois avoir cent francs mais juste question d'équité et ñoom il l'avait expliqué à l'époque au moins lu jaadu. très bien et je pense qu'ils ont finalement eu gain de cause mais dafay des yu bëree bëri mais sachons tout simplement que muy dans le secteur de l'enseignement muy dans le secteur de la santé il y a énormément de priorités dans ce pays. très bien. Parrainage. Voilà. Bougane qui alerte et dénonce une fois de plus Simon-Pierre Faye. lu muy alerté ak lu muy dénoncé. ah mais parrainage bi. ndax ah. jaxasoo na mbirum sans fiche euh, Ousmane Sonko bi ñu génnee si si bañal kiyam hmm. ficham donc li euh, yooyu yëpp. ah moom ba tey mi ngi koy ah, dénoncé. waaw parce que parce que yooyu yëpp xaw ma ko ci woon mais puisque mais mais c'est tout à fait normal. c'est tout à fait normal parce que Bougane également euh, fait partie de de qui ont combattu le parrainage c'est vrai que benn instant euh, maître Abdoulaye Tine de l'Union sociale libérale xawoon na cee wét. mais après on a vu des gens comme Bougane yoo xam ne ils ont finalement porté le combat aujourd'hui ce qui s'est passé euh, mooy li amoon euh, à la direction générale des élections beaucoup de gens n'ont pas compris mm-hmm. que direction générale des, des élections prenne la liberté mm-hmm. de refuser des fiches de parrainage au mandataires de Ousmane Sonko mm -hmm. Peut-être qu'ils te diront qu'ils ont reçu des instructions. Mm-hmm. Peut-être que d'aucuns également en ont profité pour euh, euh taper du point sur la table. Euh, ba peut-être ngañ sax conseil constitutionnel mais dans ce cas précis moi je dis que conseil constitutionnel mënuñu koo ci wax lenn parce que conseil constitutionnel yëf yi àggagul ci moom on est encore à l'étape des parrainages de retrait des fiches de parrainage et ça se passe au niveau de la direction générale des élections qui dépend du ministère de l'Intérieur parce que c'est le ministère de l'Intérieur quoi qu'on dise qui va organiser les élections donc yeggagul ci conseil constitutionnel bu conseil constitutionnel war ci mën a prononcé wu donc l'affaire se trouve au niveau de la DGE et du ministère mhm. qu'est-ce qui se passe on a vu la dernière fois que l'acte de radiation de Sonko mhm. lui a été notifié wala boog l'huissier jéem na ko gis xaw ma nag fan la mujjee mais de toute façon ce qui est est constaté mooy le nom de Ousmane Sonko génne nañ ko ci liste électorale yi Pastef a été dissous peut-être que gars yi foofu la sukkandiku je dis bien peut-être parce que ma mais est-ce que justement le débat que posent les Bougane et, les autres mooy DGE ban prérogative loo war a mën a am pour bañal benn mandataire d'autant plus que bañal nañ ko Ousmane Sonko mais jox nañu ko mel ni biram Souleye mm-hmm. jox nañu ko ci mel ni mais euh, ñoom si ban bannière lañ leen ko que ce n'est pas justement c'est la question que que que je posais la dernière fois joxe ñu la ko parce que Pastef nekk. ci ban bannière bu dee identifier nañ leen comme des gens de Pastef peut-être que ces gens-là également dañoo ñëw ak beneen tour bon ça également il faudra ñu ñu leeralal ñu ko. c'est ça leeralal ñu ko xamuñu ñoom Birame Souleye Guy Marius Sagna ñoom ban na bi ñu demee lan lañ présenté. lan la ñu ñëwee waaw. pour ñu jox leen kii bi bañ bañ ñu jox leen. c'est également ça. est-ce que Pastef la ñu ñëwee parce que bu ñu ñëwee mu ñëwee Pastef c'est sûr que ne duñu leen ko nangul je pense que mbir yi peut-être polémique bi pour mu mën a jeex. Mm-hmm. waa DG e ñoo war a génne. d'autant euh, le mandataire de Ousmane Sonko moom li mu expliquer mooy bi mu ñëwee on lui a demandé de se présenter il s'est présenté avec pièce sur la ah. base de sa carte nationale d'identité donc est-ce que laaj nañ ko ban entité politique lay représenter ou ban acteur euh, peut-être leader lay représenter je sais Euh, il s'est présenté euh, sur la base d'une pièce d'identité donc lan moo xew après yàlla rek a xam wala waa ah, DG rek a xam DG ñoo war a génne leeral nit ñi parce que coow li foofu la quoi Peut-être que la question va revenir parce que la DGE justement a convoqué les mandataires et autres coordonnateurs régionaux pour euh, un atelier d'échange autour des modifications, je pense, euh, du code électoral. Et ça va se passer ce matin. Certainement que la question va revenir sur parce, la table. Parce que la manipulation, il faut barrer. Nous, les politiques, maintenant, nous savons ce qui mais nous texte seen tànk bëgg ñëw andi polémique dafay am coow lu bari daf fii am ñu xam ne cas bi nii la demee wala problème bi lii la mhm. mais ñu teg ci seen tànk parce que arrangé leen ñu def ñu ñu ñu ñu ñu ñu def ko polémique bu rëy pour bëgg peut-être mettre en mal ñenn ñi ak askan wi mais loolu nag fi mu nekk nii pour nit ñi mën a xam ce qui se passe réellement DG nañu génne ñu wax ñu ñu ne problème bi lii la lii moo tax joxuñu leen ko lii moo tax ñu refusé leen euh, euh, fiche bi nga xam ne moom mooy pour ñu uti parrainage lii moo tax ñu nangal ko nangul ko Guy Marius Sagna lii moo tax ñu nangul ko Guy Marius euh, Birame Souleye ak ñi si des mais loolu rek moom moo ci mën a ne parce que fu mu nekk nii ku si nekk kuy wax da ngay wax lu la neex rek dangay wax lu la neex peut-être ñenn ñi nañ sukkandiku naan waaw loi lii la wax conseil constitutionnel ñoom rek ñoo am droit wax ne kii mooy candidat kii du candidat mais xanaa DGE cuunew ñu cuune gu doy ni ah refuser nit fiche boo xam ne nii droit wam la. mais ba tey aussi. waruñu cuune fu toll foofu fan la ñu teg euh, Ousmane Sonko bi ñu génnee ci liste électorale bi fu ñu ko teg parce que je sache teguñu ko benn daan boo xamante ni mën na firndal ni moom mënatul bokk ci élection ñoom dugal nañu recours nest dugal nañu recours tax mhm. dugal nañu recours. waaw nañ topp seen recours. <laughs> ñu xool pour pour ce qui de de la DGE man sama sama analyse bopp la. par rapport a à à cette polémique autour du du du refus euh, au mandataire d'Ousmane Sonko mu mu am ay fiches. Mhm. Euh, peut-être que ñoom dañu dañu dañu dañu jàpp ne DGE warul nekk étape de filtre. d'accord warul nekk étape de filtre. Mhm. parce que filtre yi quand man dégg ma fenn fu ñu waxee ne DGE war na mën a commencé filtrer les candidats à la candidature peut-être que polémique bi looloo ko indi. mais mais attends tout texte je ne sais pas électoral a que le conseil constitutionnel. que oui. que. ou invalide. des candidatures. Mm-hmm. donc euh, xam naa moom peut-être dafa am leneen daal mais ça. donc DGE DGE du filtre. donc DGE yoonam newu ci. DGE du filtre. léegi nag sur quelle base la ñu bañ a Ousmane Sonko. Euh, je pense que éclairage yi foofu la war a mën a nekk. ñoom rek ñoo ñu mën a leeral fu mu nekk. waaw aywa. man man discours politique yi ku si nekk naan waaw war ñu ko jox waruñu ko dañ ko ko war a jox war a kii intéressé wu parce que les politiques ñoom ñu dañuy manipuler. Hmm. buñ ma newoon sa parrain yi matul. buñ ma newoon sa quitus fiscal baaxul. buñ ma newoon sa caution bi nga joxe euh, matul wala wala baaxul ni nga ko joxee et cetera et cetera mais simple fiche ah bon y' a quand même un sérieux en tout cas. Mbaye Ndiaye. Hmm. ñu xool ku yegg si kaw tribune bi. moom kay. Euh, suñu boulevard Maurice bee. gannaaw ba ñu ñaxtoo ba léegi kenn faalewuñu liggéey baa ngi fa ba léegi en stand by lu xew xamuñu sunu kanaal bi ñu doon tëjee tamit ba léegi liggéey ba fa mu yemoon fa la yem te ngeen ko xam-xam kaa canal yu ngandam yooyu <laughs> tëj nañ tuuti lises mi ngi noonu liggéey ba taxaw lan mooy problème bi entreprise bi def liggéey bi ak ouvrier yi lan mooy seen problème mm. parce que am na ay écho yu ndaw yu ñu ciy am mm-hmm. nañ ko waxtaane ñuy continuer ñu suñu travaux yooyu te ngay dafa jot nag ci surtout ñun xam naa xaw ma présidentielle bii hmm. ñun ñii war a gën a xippi suñuy gën di xool ñun la hmm. ñoo fi dàq voté hmm. ñoo fi dàq ñun dañuy voté voté voté ba tëdd suuf président bi fi nekk à chaque fois ñun dañ koy votel ba aju si kaw te buñ tolloo ci ci liggéey ñu tëj ñu fàtte ñu nañ si jóg présidentielle février bi yeboo ngeen xam bu baax de boo leen di voté ji na ngeen xam baax li ngeen di voté leen ngir ëllëgu tëngeej li fi nekk nii wax fa dëgg neex yàlla nañ ko xoolaat. maa bay ñun ñëw ñu ci élection locale. élection présidentielle yi <laughs> dama jum dama sonn waaye. néew ñu non non parce que yow li ngay wax ni c'est une doléance locale. c'est vrai que ñaata premier ministre ñoo fa jaar. waaw mais les élus les élus benn de tegi lan mooy seen liggéey. ñu waat waat ngi. waaw ah. fekk dama si am ay xel. wala <laughs> ñeme woo jee sore. nañ yéeg si kaw tribune bi. dama si am ay xalaat ay xarit quoi xam nga l'honorable député ah. ah, ñoo tax mais ñëpp xam nañ ne ñun problème mu problème mu autorité am tënkee. ñoom ñoo ils n'ont rien travaillé. war a défendre. Euh. suñu projet ñu mën see taxaw. ñoom seen yoon nañ ci waxante dëgg. ayca kan moo yegg ci kaw tribune bi ñu ne Amadou Ba. ak Bougane Gueye Dany mais dañuy njëkk ci Amadou Ba Amadou Ba moo njëkkee ci tribune yéene kaay en tout cas yéene kaay bi di ko xamal ne Amadou Ba et son gouvernement fu mu nekk nii dañoo démissionné démissionné si jàmbatu sénégalais yi nee nañ askanu Sénégal boolu jàmbat lu fees dell la ñu man sama boolu jàmbat tey jii boo ko wàcc woon teg si suuf bu ma lay dindil samay problème njàng mi si lay bokk fourniture yi rentrée bi inscription yi ci jàmbat yi lay bokk courant bu bi woyofal bi nga xam ne woyofatul ku nekk ak sa boolu jàmbat ah tey Simon boo dindi bosam non fu nekk ciment ak ciment ak suuf moom bokkatoo donc yow donc yow say jàmbat fu mu nekk boog buñ jël jëloon sa boolu jàmbat teg fii ñeen ñeen mën na amaat beneen doo ba am ba pare na bàyyi na bàyyi bañ am na bàyyi bañ am ba tey jii boo dindi woon ay jàmbatam ku si nekk ak sa yow asma buñ dindi sa boolu jàmbat teg fii ñu koy yebbi ku si nekk ak problème ku nekk ak problème mais Mbaye problème yu bëri na. non Sénégalais yi ku nekk ak sa laal mi ngi métti. yaramu màggat la. wallaay foo laal mi ngi métti. nee nañ ko Amadou Ba bu ñu la waxee waxal looy wax. ci agent marketing nag fu mu nekk nii mu ngi lay jaay. agent marketing bi kenn ku dul président Macky hmm. mu ngi jaay Amadou Ba comme produit bu nga xam ne ni produit bu bees la. mooy kii marketing yooyu nekk ci mbedd yi di jaay. Hmm. nee na fu mu nekk nii président Macky Sall mooy jaay Amadou Ba fu mu ne moo koy jaay. fu muy dem yóbbu ko. ku mu xam boole na ko wax moom ku mu xam ne mën naa ñaan mu boole ko wax moom ne ko ñaanalal ma ko sunu xalif généraux yi ku mu si dem nee na ko ñaanalal ma ko ah yi la koy jaay fu mu nekk nii nee na leen nee na leen produit bu baax baa ngi nii produit bu baax baa ngi nii amul benn effet secondaire ñoom ñëpp jëfandikoo leen que ni mu leen neexee te amul effet secondaire nee na leen Amadou Ba amul effet secondaire mooy produit bu baax <laughs> diwoo leen raayoo leen naan leen sangu leen. sotteeku leen def leen sotteeku leen. du yàq sa dara du yàq sa dara. ne massage bu la neexee nga massage bu amee fii metti jëlal. <laughs> nee na ko Amadou Ba fu nekk nii moom agent agent marketing bi du kenn ku dul président Macky Sall. Macky entre campagne avec opération de charme pour son candidat. waaw. nee nañ ko nag bu ñu la waxee waxal looy wax dundu gu cher gi ci réew mi lépp yokk. bu la waxee waxal looy wax góor-góorlu yaa ngi bëgg dee. Amadou boo demee Ziguinchor 52 ci ay écoles yu nga xam ne ni daanaka kenn mënu faa jànge ubbi day jàng tey moom mënu faa am buñ la waxee xam ne dañ képp la ñuy dund nee nañ ko président Macky Sall sa produit bi ñuy jaay nii bu fekkee mooy bu baax bi na jéem a faj jafe-jafe yi école bii di metti boo ko ci diwee taxul mu wér gis nañ 52 classes yu nga xam ne ni doxul ah, njëkki cher nii mais mën na indi solution mën naa indi solution solution. bu boobaa Bougane Gueye Dany nee na que sa produit boobee de bien boo nga ah, la baaxul. mais le premier ministre c'est celui qui a la mission de transformer la vision du président. du président en acte. ah bah voilà. bon mais c'est peut-être parce qu'il est venu un peu trop tard. waaw fu mu nekk ñaar un an la fi def ah. ça fait ah? Ah, peut pas tout le jardinier des rêves du président. ah. parce que Macky à hmm. cette, à cette, à cette image d'avoir sorti les chantiers de Wade de terre. Boun Abdallah aussi pour Macky Sall. Mais parce que Macky a fait plus de temps avec le président Wade. c'est lui qui a accepté d'être Premier ministre. Moi, Kosombi, nous connaissons. Ah waaw mais à la dernière <laughs> présidentielle 2024 Bougane Gueye Dany mi samp ndëndëm nee na ko président Macky Sall sa produit bi ñu bëgg a jaay li du jàll. ndax ay effets secondaires rek la. nee na ko Amadou Ba mi ngi ñu bëgg a jaay produit Amadou Ba bi ngi ñu bëgg jaay nii effet secondaire rek la Bougane Gueye Dany mooy wax de après yéen kay kaay groupe de médias nekk nag Bougane am nga say defi parrainage bi rek dèjà défi ci yow ndax yow xaw ma ku amul amul expérience parrainage waaye yaw am nga ko ñam nga kon nag yow da la wóor ne mbirum parrainage yi da war a romb étape boobu opposition bi it nañu bàyyi xel bu baax fichier bi nga xam kay bu nga xam ne ni nee ñoom war nañ ci mën a bàyyi bët xool ko bu baax waaye na nañu écarter Ousmane Sonko yi d' accord ci de. d' accord ci moom. le filtre inacceptable contre Sonko. et franchement c' le seul aujourd'hui qui défend toujours Ousmane Sonko. qui parle de ba léegi. Ouais, franchement moom mi ngi campé si position. Mm-hmm. na woon fa woon. franchement mais man damaa bëgg a xam. pour nekk celui qui mm. naa la rek moo ñu mën a. moo ñu mën moo ñu mën a andi ay leeral. celui qui n'est plus électeur. Parce que ñoom Birame Souleye ils sont encore électeurs. Électeurs ñoom Bassirou Diomaye Mais si tu n'es pas sur le fichier ça veut que tu, tu pas éligible tu n'es pas électeur en même temps. donc mais nag est-ce que. est-ce que mën nañ la jox fiche bi yow pour nga dem def. ah à e. moo tax ñu ne DGE tamit wax ñu. parce que aussi il y a beaucoup de choses entre-temps hein. parce que DGE wax ñu. parce que bu dee dañoo jot instruction rek peut-être pour man dafa yomb daal. mais quelqu'un qui n'est pas électeur. est-ce qu'il a accès aux fiches. wallaay DG rek moo ñu mën a tontu. léegi nag ce pourquoi. il n'est plus électeur pourquoi aujourd'hui il n'est plus électeur. Ah, il n'est plus électeur ñoom état def na la muy def. tas na parti bi moom am nay problème en justice ñu ne rajee nañ ko ñoom ñu ngi ci yoon. nee nañ d'accord seen droit la ñu nekk. qu'ils attaquent la décision et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Moundiaye ici c'est qu'ils attaquent la décision à Karim Wade l'a fait. Karim Wade est allé pour s'inscrire. On lui a dit, mon frère, tu n'as pas droit. Mm-hmm. bon. ah en tout cas. nañ ci bàyyi xel bu baax. Bougane Gueye Dany ba tey nee na nañ filtré ki nga xam ne moom Ousmane Sonko d'accord ci def. parrainage controversé avec des accusations de fraude d'injustice ay millions yu nga xam ne dañ leen bind ci fichier électoral bi. te nag xel mu nga cay tey bugaan ngi dani mooy dànqaafu ba tey de jamono jooju octobre rose yéen a ko yéen a ngi ci mois octobre bi moo tax asma solo na mu solo ni tey jii parce que ne moom it taxaw xeex li nga xam ne mooy cancer cancer bu tuti njurukaay mm-hmm. ak bu weel mm-hmm. en tout cas waa Liska ñoom fu mu nekk nii ña nga ca xeex ba mm-hmm. mais nag soxla nañu ku leen jàppale ci wàllum koppat ndax seen doole bopp la ñuy demee dépistage sa ñuy def nii yépp euh, seen doole bopp la nañu leen taxaw bu baax Refus de délivrer donc les fiches de parrainage à la coalition Sonko présidentielle Alioune Tine désavoue la DG e. ku nekk ak noo ko gisee. te dafa sol kopp ci kii bi aw sa. Yoruba Yoruba bii ça c'est Yoruba. Alioune Tine désavoue e. le commissaire Tanor Lan. avec le Libi. Tanor Fall et compagnie invité à ne pas substituer au en tout cas moom ci boppam nee nañu Ousmane Sonko mii nga xam ne dañu ko jële ci euh, euh, dañu euh, waa DG e dañu ko teguñu ko fenn. am na ko may attaqué nee na ma ah léegi parce que tu n'es pas objectif parce que tënkee da fa am ay xarit moo tax. <laughs> ah feeñ na moom d'accord naa ak moom. mais bi ma waxee loolu ba pare lan laa ci teg. Mhm. dañu war a liggéey ñun ñëpp xam nañ ne ñun problème mu autorité la ñu am tënkee. <laughs> ñun loolu wax nañ ko fu ne. te ki may attaqué xoolal. maanaam saa ma taxee mu attaqué ma. maanaam foofu dara. problème la ñu am ñoom xam nañ ko. non rien dañ ko jàmbatee fu ne. liggéeyuñu moo tax tënkee dem. dañ ko wax fu ne. noonu bu saf soppee la. ñu ragaluñu loolu dëgg jox ñu nag la ñu loolu. xam nga ne dans Sénégal qui était de dix ministres y avait un Rufisque quoi. ñun gouvernement bi ñoo ñu am ci nit ñi duñ fa am benn ay ñaar ñett lañ fi am te duñ jariñ dara. ah dëgg nga ministre duñ fa am ba ci gouvernement bi. ngay gis am nañ ci. Hmm. que Omar Gueye nekkatu mais am nañ ci ay ministres. très bien Samba si fële dëkk. te ngay l'observateur loolu lañ ñu jariñ. baa ngee mënul ba mën ta yegg. tënkee kenn faalew nañu dimbal te voté jotee ñun ñooy voté lu ëpp l' observateur na présidentiel 2024 président Macky Sall fabrique sa victoire fu mu nekk nii mu ngay doxal de mu ngay doxal bennoo le malaise du parrainage fu mu nekk nii nag leer naa yi ñu teg ci gox yeex gox goxaan yi jur na coow de ci biir euh, euh, euh, bennoo ndax nag <laughs> les alliés nee nañ dañ leen ci seet bi ba mu seet parti socialiste muy gis si boppam l'AFP gis suñu boppam tànnuñu si kenn ngir nag mu mën a coordonné parrainage yi si diwaan loolu moo leen metti mais le problème c'est que euh, Benno a un grand leader tentaculaire et a un candidat clivant. Ah. c'est mmh. assez particulier. Hmm. un D'accord. candidat clivant. et a un grand leader vraiment qui est derrière qui est tentaculaire. day na waar di ngeen ma comprendre quoi. dikkaat ci. dañoo déggul tubaab na xam sama genre dégguñu. jégalu kon. le mandat yéen a kaay nii. yeewu askan wi fu mu nekk nii parents dispersés. xam nga Bougane au bi doon na leen wax ne euh, nañu def focus ci benn wala ñaari candidat bu baree ba bari ñett. ñoo xam ne nii peut-être bu ñu demee euh, moom mooy ëpp chance mais fu mu nekk nii yeewu askan wi boo seetee opposition bi tas na de. non mais mon tonton est charismatique. kon Amadou Ba. Mhm. mais lu mu ci manti doon charismatique ou pas na jàkkaarloog ay ay adversaires. il est charismatique le tranquille. <laughs> nee yeewi askan wi rend dispersé fu mu nekk nii. Mhm. ñaata candidat moo nekk ci yeewi askan wi bari na de. lu jig mboot ndax dina jig janax. bari na de. ah. yeewi askan wi ay dem ba ju candidat candidat. ah super Linguère xam nga li ma doon wax temps yii mi ngi ñëw. waaw waaw pourquoi les gens sur la multitude de candidats au sein de Benno. Hmm. après léegi nag li dal bennoo moo nar a dal l'opposition moo leen di dal ndax yeew yi rek ci biir parce yeew yi dèjà ñi nga xam ne nee nañ Pastef la ñu bokk am na quatre candidats yu génn xam ñu nag si ban bannière la ñu demee waaye boo seetee ci biir yeew yi xoolal ñaata candidat moo fa déclaré. presque ñoom ñëpp. Malick Gakou Déthié Déthié Fall. <laughs> ajaratu ay ay ay dëmboo super ligne. retourné 360 ah Habib Sy. Hmm. ah tonton Habib Sy waaw. tonton Habib Sy waaw. borom ndax xale yaa ngi yëngal. ah. aywa Abdourahmane Diouf si ñoom la bokkoon wala bokkul. Abdourahmane ah je sais pas. awal ah, ah, avalé. ñaata candidat xaw ma neuf xaw ma ci biir Yewwi Askan Wi l'opposition libère le boulevard fu mu nekk nii nag ñoom ña ngay defante de waaye ma euh, ñoom nguur gi ña ngay doxal. élection présidentielle Bougane Gueye Dany nee na les enjeux décisifs qui attendent Bougane Gueye Dany et l'opposition kon nag moom xam na li koy xaar enjeu yaa ngi nii taxaw. ndeysaan jàkkaarloo moom. nit defi la. finalement c'est le chef de l'opposition finalement c'est le chef de l'opposition parce que moom il est mu tegoon tànkam ba léegi teggu ko wallaahi kii kele principe naag moom ak àndut ak man ak bu ñu ko tegee lu yoon dama koy wax dama koy dénoncer wax na la muy wax xeex na la muy xeex et puis nekk ci yoonam moom ngay gis ba tey ci l'évidence yéene kaay moom bëggaan ngay dani mi ngi dikk na ci de jamono joojee nee na présidentielle 2024 après le parrainage après le parrainage ces autres donc euh, écueils kii attendent Bougane Gueye Dany et compagnie kon nag moom mi ngi daal fanaan te xam na lu koy xaar. ah garaawul yàgg na jàkkaarloo moom di xeexaa moom parce que asma am na lu ma junj nii am na lu ma déey nii. am na lu ma dee nii. Ah, xaw ma nag dana xaw ma dana dana demee noonu wala déet la folle course au parrainage gaañaa ngay nekk ci terrain bi de. retiré nañ fiche yi candidat yaa nga ca terrain ba di doxal ku si nekk fas keneen wut ay signature dem leen de boo leen ko utul xam. gouvernement bi de bu liggéeyoon comme tonton Maba ak Chimère instant yi. kon Sénégal boo leen ko utul xam. ndax liñ la cadré instant yi amul fenn. kan yow mii wala man yow mii léegi ñu may jaay fu mu nekk nii. non non léegi lañ ñëw si man yow. ñooy sama agent marketing fu mu nekk ñoo may jaay <laughs> eh jël leen kii libération. macha allah. enquête sur les fonds Covid 19 alloués au ministère des sports. Sud baa ngi nii. face le DAGE ministère des sports la tegal de. Mhm. a admis avoir violé les règles de la comptabilité. d' accord na kon. cent deux cent cinq millions de francs CFA ont été remis en espèces à des organismes de droit privé dont les bons n'avaient pas été validés par le ministre des finances suñ ko teg. lu ñu validé wul cinq millions. Matar Ba. après la fédération sénégalaise de basketball. un autre détournement d' Euh, débusqué dans les fonds remis à la fédération nationale de handball ah, tam ñam na ci. oui. eh bien tong tong tong Covid 19. cas Gris Bordeaux Mamadou Ngom Niang évoque des instructions de Matarba A. Ah, ah bon cousin. ah bon cousin ah, ah, ah. dugal na Matar Ba et Baba Tandian je l'ai eu mardi dernier. waaw lii hmm. yëpp da ko waxoon daf ko joxoon ba si ba ko sax nag. waaw. Mhm. mu nekk sax waaye il est venu à Dakar en Jakarta même. <laughs> aujourd'hui roule en 8 en tout cas 70e anniversaire 70e anniversaire. waa grand place Aliou Sarr la dikk ah moom candidat la samp na nee na véritable profession de foi dafa génne livre le devoir avant le droit wuute nax lan le Sénégal qui vient. nee moom le droit le devoir avant le droit la woote dans son premier livre le devoir avant le droit l'ancien ministre montre son talent de littéraire doublé d'un juriste conseil envers les jeunes. très bien il est na dëndëm huit heures passées na ñaata. naax la waxtaan wee neex. waaw waaw waxtaan wee neex rek. aywa mi ngi noonu. waxtaan wee neex rek. lu gën a fës ci boppu xibaar yi lu may ma génne li gën a fës ci bopp